moo jaaxal ingénieur ba kenn du Cheikh Sidi Mokhtar boo demee Touba noonu la fa def liggéey ba noonu la fa def kon bu bu bu fi yabalee ñu ñëw fi war nañ leen a xamal kooku ci poste bi mu doon beneen bi ci topp mooy Cheikh Mouhamadou Lamine baaram mi nga xam ne mooy borom bis bi te moom Cheikh wax ci wax bi amu am solo gënoon lañ ci tënk lu gàtt. ndax man bu may waxtaan ci moom damay am all joo xam ne ku ko sentir xam ne samay wax sax du ko mën a du ko mën a maîtriser ndax dayo bi Cheikh Mahamadou Lamine Bara am ak daraja yi yàlla may te doomi Serigne Touba yëpp nongul ko ko maam Cheikh Cheikh Mahamadou Fadal ci boppam mi nga xam ne mooy borom Kazu Rajab bii nu jublu daa am bayit yu so yu am solo yu wax ci Cheikh Mahamadou Lamine Bara danañ si ci kanam Cheikh Mahamadou Lamine Bara doomu Serigne tubaal mooy ñetteelu doomu Serigne Touba bi feeñ ñu xam ko ci ñu dund ginnaaw Cheikh Moudou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal sëñ Baara moo ci mag waajuram bu jigéen mooy soxna Aminata Lo moo njëkk jaayante ci yoonu murit joxe bakkanam waaw kon ñu bàyyi ko dëgg bismillah ah. bàyyi ba li ko dëgg na na tay est-ce que bu dëgg lay doon Thank you.